jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne jàngat làmb tàmbali na nga ànd ceeg Baye Djily ñu jugee bërki démb fole ca arène national ki ñu fa woon di Ndiaye production ci njiital ba di Fallou Ndiaye fa njaay production def state bi noo xamante ni macha allah képp kuy amateur démb kontaan nga ci state bi ni ñu ko def. ni ñu def arène nationale vraiment mbër yi ñëpp mobiliser indi fa ay euh, indi fa ñi nga xamante ne ñooy seen i xarit seen i mbokk ndaysaan stade bi nekkoon lu neex a neex a neex ñuy félicité waat bu baax moomoo Ngom doomu baabu Ngom gis nañ moom it macha allah taxawaay bi mu taxaw démb ca stade ba macha allah am na solo autorités yu bëree bëri yegg si nañ drapeau zootechnique la woon. ñuy félicité waat bu baax jo di ko wax ni macha allah bis bi démb mel na ni mu war a mel gannaaw loolu dañuy dem arène nationale war ne lépp loo xamante ne jot na fa am ci cosaan bakk su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi yegg ak yéen ci jàngat gi ay ca ñu dem Ada Fass a ngi noonu gis ngeen xeetu bàkk boobu nga xamante ni mbër yi def nañ ko muy wane ni saa su rek mbër yi ñu ngi gën a yokkaat seen bëgg-bëgg ci fecc mi mbër yee ngi gën a yokkaat seen bëgg-bëgg ci chorégraphe bi ñu ngi gën a wanewaat seen bopp ci làmb te loolu mooy làmb ndax boo gisee stade bi mbër yi ni ñu duggsee ni ñu dogalee nga xool mbër yi ñu ci tëgg yëpp munoo wax benn mbër yegg na ci vingt million wala dix million ñaari mbër yi bëre grand combat bi yaakaar naa kenn jotu ko ci. te gis nga ni ñu def stade bi ay xale yu ndaw duy stade bi ba mu fees dell macha allah dañuy ñëw ci combat yi nga xamante ni ñoo ci jot a xew ci combat préliminaire yi su ko defee après ñu indil leen euh, combat spécial bi ñëw ci grand combat bi gën ci def jàngat yaatal ko ba mu yaatu ay ca ñu dem te ñëw. Pape Ndoye 2 Papa Siteu hey Pape loo def Papa Siteu ana lan nga def nii est-ce que da nga ca na oh Papa Siteu daan na Pape Ndoye. bi sifflé na Less Djine dem na ci arlo ba dellu si waat Bees a ngi reculer puus mu génn waaye dafa bañ di génn bu amul sens daan na ko waaw waaw abit àtte jël am na wala amul jël am na wala amul abit baa ngi xool ay siisam abit jox na victoire ki nga xamante ni nii mooy Zale as na waaye dalul Fils de Lirou Bébé Balla eh Fils daw na ko daan na ko Fils de daan na Bébé Balla doomu Mewane mbokk yi moo ñëwoon gannaaw Tiblesse dañ jaakaar lool doomu Mewane cokkaas na léegi waaye dalul at na doomu mi naan Tiblesse plaqué na ko da koy mbot daanu na Tiblees daanu na doomu daan na doomu bañ na. Hercule amul mbéy lu mu nar. la ilaha illallah. armé rëcc la. armé la. la ilaha illallah. armé rëcc la. Hercule raté na penalty ba. raté na penalty bu dee penalty ba ko dóor ci baar bi wala da koo naawal. déedéet góor bi da koo jàpp da koo ah. teg na fes. déggal. ndeysaan ñoom ñaar Ousseyn. penalty bi ma da koo naawal. wala du koo dóor baal bi wala góol bi da koo jàpp. déedéet góol bi da koo jàpp baa jiile. Ama bu zëkk la ko def zëkk. xam nga ñu naan zëkk. loolu la def moom baa ñoom ñaar a ngi noonu. lu mag doon def ba dee bu dëkkee ba ko. armé li ko dal léegi du ko dalaat. déedéet xalaatu ko sax. ay waa Hercule raté na occasion bu waaye lamb noonu la. diggante bi ngay wëree mbër mi ndomba ak ba muy rëccee ak ba muy bëree ak ba nga koy daanee wala ba mu lay daanaatee loolu yëpp ci biir bëre la loolooy bëre général Malika ngi noonu ndaysaan doomu Malika bi dugg ci stade bi daawa noonu ci wet ga rakana masala nga noonu ca wet ba ndaysaan lamba ngi ndaysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu xale yaa noonu ñoom ñaar ndaysaan maa ngay nuyu Mansour sama xarit ba borom arène bi TV la ilaha illallah <laughs> ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu <laughs> ak waa seen affiche ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu Armé jàpp na ci génn bi di ko déglu ndeysaan Hercule Hercule nga continuer bëre bi Arna juum na ci biir bëre bi ba Hercule wër ko domba waaye góorgóorluwaat na ba génnaat loolay làmb ndaysaan Hercule armé bu ngéwël ndaysaan ñoom ñaara ngi noonu ndaysaan Hercule armé bu ngéwël Hercule la am léegi ñàkk ko bés bu ko armé bu ngéwël amee billaay mu xam ne golo du jàng alxuraan déet waay déedéet xajul ca boobu bàyyi ji li. dégg nga loolu saa su ngay dégg yu bees ay proverbe yu proverbe yu bees Ousseyn la beneen ndeysaan làmba ngi noonu ndeysaan jàppante na ñoom ñaar Armé bu Ngéwél ak Hercule Armé bu Ngéwél Hercule tuuti entraînement moo fi feeñ bëre nañu jaayante nañu doole fi mu toll nii ku ci nekk xam nga lu sa morom di saf bu combat bi yàggee tuuti képp entraînement mu ëpp avantage baa ji ndax boo xoolee ki nga xamante ni nii mooy Hercule wër na ko ndomb lépp lu amoon def na ko foofu mais teewul ki di amee bu ngéwél dafa liggéey mbokk baa ji li ñi ay xale lañ xale yoo xamante ni lamb ji dañ cay teg seen bakkan am na ku ma dégg sax nee na ma combat bii nii ak combat Mor Kankang diggante Mor Kankang ak ak ak boo Ada Fass Tapha Mbeur nee na ma demi final ak final ma ne ko xanaa kon bii mooy quart de final bi. Ndeysaan lamba gi noonu. arbitre bi àtte na. arbitre ñoom ñaar. Ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu. arbitre bu ngéwal ak Hercule. arbitre bi sifflé waat na ñoom ñaari xale yaa ngi leewaatoo. Hercule ngeen jàkkaarloo armé door na. Hercule jëlaat na ko. nga la ma la waxoon. attaque la ma la waxoon oh. oh. Hercule daanu na. dafa forcé parce que dafa yegg ca wet ga. Hercule daanu na da koo jàllale. arbe nee na ko dama lay rey. munu cee bu ngewel daan na may ko mu ñëw. ngewel la ndeysaan ñëwal. ngewel rey jag jëy <laughs> Euh, damay taxaw ci combat bi avant com avant grand combat avant spécial bi mu dox ci diggante armée bu ngéwal ak erkil ñaari xale lañ yoo xamante ni kii dafay jóge jam ñaajo muy armée bu ngéwal erkil jóge parcelle mu wëree ci bëre boo xoolee vraiment armée bu ngéwal moo xaw a ëpp volume mais Hercule xale la boo xamante ni mën na bëre mën na xeex waaye bu yeggee Hercule boo yeggee mbër fu kawe wala fu sori faw nga teey faw nga ànd ak dal faw nga xam ni làmb yëngu-yëngu gu bari jeexalu ko ndax bi nga waree ndomba armée bu ngéwal bi muy rëcc nga continuer ci action boo xamante ni mënoon naa ñàkk mbër kenn du ko forcer forcer bi nga ko forcer moo tax mu ànd ak yow ba ba retourné wu def rotation boobu ba jàkkaarloo waat ak yow bëreeg yow teewul malgré que nag yaa ngi bëree yaa ngi def li nga war a def ndax xeex nga bëre nga vraiment xeex nga bëre nga ndax bisu defet du bisu ndam te it bisu ndam moom du bisu defet ala kuliane arène nationale ku fay dugg ñaar yi rek nga mën a dugg si da ngay dugg si am ndam wala nga dugg si am defet te loolu mooy làmb bëre ngeen ci biir bëre bi ngeen wuree ci bëre ba armée bu ngeewal daan la ñuy encouragé waat bu baax Hercule di ko wax ni làmb mu ngi sa kanam gën a la góorgóorlu préparé waat ñëwaat journée làmb yi du jeex dimanche làmb yi du jeex làmb képp ku góor góorlu rek li nga bëgg ci làmb mën nga ko am. Hercule euh, armée bu ngéwal bàyyi leen ko xel mbokk yi am na corpulence bi naam am na am na kàttan gi mais nañ ko gën a travailler waat yaakaar naa ni euh, xale la boo xamante ne am na taay boo xam ne boo ko amee ci làmb. jot na ñu taxawu la ngir li nga xamante ni jam ñaajo da koo ñàkk ñoom ñu am ko parce que jam ñaajo gis nañ fa ay xale yoo xam ni war nañu mën a téye làmb boo ko xoolee ci seen mag ah Jordan nga xam ni moo fa magale xale yëpp xool xale bi nga xam ne mooy dab daan bërki démb bi mu ñëwee arène nationale arme bu ngéwal ñëwati na bëre moom it daan te yeneen xale ñu ngi fa ku lim doo doo doo doo da nga dul matal ku doo juum waaye da dul matal yeneen xale yoo xamante ne ay champion lañ biir jam ñaajo ña nga fa te ñuy jugee dafa sori làmb boo gisee mbooloo mi ñuy indi jugee jam ñëw ñëw bari si arène nationale pare war a delluwaat jam ñaajo xale yooyu jot na képp kuy autorité biir jam ñaajo nga jàppale leen léegi su ko defee dañuy dem ci combat spécial bi dox ci diggante Mor Kankang ak euh, boo Yëmbal ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem mbokk yi Boy Yeumbeul ak Mor Kang Kang Mor Kang Kang ngeen jàkkaar lool Boy Yeumbeul moo la woon ginnaaw ngemboo ngembu lu vert li Ousseyn ñoom ñaar taxawaay bi baax na de waaw ñoom ñaar taxawaay bi baax na mais boo xool ki nga xamante ni mooy moo Kang moo xaw a ëpp tuuti taxawaay kii di Boy Yeumbeul waaye loo ci mën a dégg daal mooy bàyyi jili ñaari ndaanaan la ñu boole def na loo xamante ni loolu la mbër war a def ci biir géew ndax am na geste bu mu def mbër bu laal suuf noonu la ko war a def geste boobu di ngeen ko xool ndeysaan ñu ngi noonu reculé na avertissement attaquant la gis nga jëli na ko da koy daan daan na ko daan na ko Mor Kang Kang daan na Boy Yeumbeul. Euh, Mor Kang Kang Boy Yeumbeul mu nekkoon combat boo xam ne askanu làmb ñëpp dañ ko doon xaar. ñu gis Mor Kànkang te gisuñu boo yëmbal yëmbal xamuñu fan nga nekkoon parce que ba façon bëre bi nga bëree xàmmeewuñ la ko xàmmewuñu la ko jël nga avertissement avertissement boobu bokk na ci li la gën a génnee ci làmb ji ndax da amoon stratégie boo doon teg di wan ni Mor Kànkang dama laa ragal te ragaluma la mais jël nga benn avertissement continuer méthode boobu nga doon bëree. ndax moment boobu Mor Kankang bëgg na laa jàpp te mënu laa jàpp moment boobu yaakaar naa ni boo continuer woon jaral na la jaral nga jël sax trois avertissement mais na nga teey parce que buy dox sa kaw ngay reculer muy dox sa kaw ngay reculer moor Kankang li mu indi ci mbooloo buggoon na laa bëgg mun na sax topp public bi ba juum ci combat bi mu bëre. Euh, boo yëmbal staff bi nga xamante ni ñoom ñoo ko gérer ñëpp nañ xoolaat xale bi taxawaayam parce que bu jugee yëmbal yëmbal gépp dañuy jóg. mobiliser ànd ak moom te mu ngi dugg ci combat yoo xamante ni mënoon naa ñàkk. tey boo jëlee Mor Kankan mi nga xamante ni démb moo nekkoon onzième combat am onzième victoire am ngeen nekk ñaari xale yoo xam ne mënoon ngeen a daje ci kaw ngeen teel a daje ci suuf ndaanaan day suul ndaanaan ñuy félicité waat bu baax Mor Kankan mbokk yi Mor Kankan bu bàkkoo dafay neex Mor Kankan bu soowee dafay neex Mor Kankan bu bëree dafay neex kon moor Kankan mbër la ndaanaan la ci làmb rawatina tund bawal gi nga xamante ni dañ koo indi ëmb ko keroog stade bi ku fa mor kankang ëppul supporter ëppoo ko supporter ba ci grand combat bi kum ci ëppul mbooloo ëppoo ko mbooloo kon xale boobu am na fu ko bawal teg te nee nañ bawal nee na bawal fa ñuy jógee dafa sori gannaaw fa ñuy jógee dafa sori bu ñëwee da leen teel libere moo tax libéré na waa bawal ñu ngi koy félicité waat bu baax moor di ko ñaanal ndam li jik ko mu gën a góorgóorluwaat parce que yaakaar naa ni làmb am nañ ci moom yaakaar bu wér a wér a wér a wér làmb am nañ këdd boo xamante ne jox nañ ko ko te gis nañ macha allah mu ngi développé ci wàllu entraînement di nuyu staff bi nga xamante ni ñoo ko yor ñëpp di leen jaajëfal di ñëw ci grand combat bi nga xamante ni ñëpp dañu ko doon xaar mu dox ci diggante Ada Fass Tapha mbër ñaari mbër yi xas-xas nañ wax nañ. génnee nañ sax single ñoom ñaar ku ci nekk euh, sànni xeer ki nga xamante ni mooy sa moroom ñu def open press laale ba bis bi ñëw la wolof doon wax naan looy bañ mu xew wala looy bañ mu am bul ko jàppal bés bés ba jot na dañuy dem ci ñoom ñaar xool ni ñu préparé làmb ji ni ñu jugee ci seen cimikaay parce que yaakaar naa ni ku ci nekk bi muy jugee ci cimikaayam dékk naa ko micro laaj ko lan nga mooy mujjee wax. ñoom lii lañ ma wax ñu dem ci mystique yi doog a ñëw ci grand combat bi ay ci ñu dem. Ada Fass a ngi noonu. lamb lépp tegtal la. ñoo ngi tekki sengoor yi. moo nga jël ndaala teg ko ca bopp ba moom Ada Fass soo bi di wàcc cay làmb yi ñoo ngi ci wàccaay li la muy def ak seetu ba waa dafa mbëri am na lu leen di joxoñ mu taaloo ko seetu ba wuccax na ko ko ñetti yoon cey làmb teelal na Senghor Ada Fass a ngi noonu am na lu muy jat moom Ada Fass ma kii ak Senghor Ada Fass a dem di waaj a tuus Tafa naa la maa di la jox waay mais li nga tuus neex na de dara lépp rek bëgg ñëw indi ndam jël si ndam war a yóbbu ndam incha allah rabi. xam nga li may ndam. waaw xam nañ ko te def nañ ko avant yaakaar naa ni entraînement yee gën a métti làmb. ñu gis combat bi yàggoon na lool ba tey bés bi jot nga ñëw garda sa calme ma fekk la nga toog di cons combat bi. waaw loolu yëpp tey ci làmb ji la rek làmb ju neex lu mu laaj. mais ñi ne ñi ne ñi ne tey Ada Fass bi moo ko arrangé ñenn ñi peut ñu ne xeex bi moo la arrangé yow noo déggee lool bi gars yi analysé li may wax rek mooy man pare naa li ma war a pare xam naa sama bopp xam naa sama écrit li ñu def si man donc li si des yàlla laa koy baax yàlla na ma yàlla may ndam bu sedd guy si kàttanam ak mbaaxam. te xam nga làmb ji fan la la mën a yóbbu. bu baax a baax moo dama fonk ko fonk ko fu fonk yam baal sëñ Fallou. ñaanal yàlla baax na léegi. jaajëf aja dégg ngeen euh, Tapha Mbeur loolu la ma wax Ada Fass jot a wax loolu mooy làmb <laughs> parce que lépp tegtal la am na ñoo xam ne dañ naan la boo jugee sa cimikaay ba ni ngay demee ci digg géew bi bul wax bul wax ak kenn am na ñoo xamante ni nag ñoom jikkoy bàyyi ma njoon lañ yor ay gaynde lañ ci biir géej ay gaynde lañ ci biir géew ay gaynde lañ sax bu ñu génnee di dox ndax gaynde googu yàlla moo leen ko mooñaale e, ñu ñëw ci grand combat bi dox ci diggante dafa am mbër Ada mbokk yi combat baa ngi noonu. benn arafas bu ëpp gis mooy ci bëre lay jeexee bàyyi jili ci bëre lay jeexee ndeysaan Ousseyn li wolof wuro wa dem na këng waxi mag dem dañ taali dàgg war na lu waay doon jaay leen mu lamb dafa mbër am na ñaari avertissement dafa ñaari avertissement arbitre bi laaj na ay siisam laaj na arafas nee na pare na laaj na dafa mbër bi sifflé na mbokk yi dimanche 31 octobre 2021 arène nationale Ndiaye production njiital ba di Fallou Ndiaye il est vingt heures dix-huit minutes ñaari xale yaa ngi noonu Ada Fass dafa am mbër boo la woon ginnaaw di lootoo lootoo bu tal lootoo bu tey lootoo bu diib lootoo bu yambare ñaari xale yi waaye du ñu cëmm ju ñoom ñaari xale yi. du ñu cëmm ju bàyyi tal ak saafara ñoom ñaari xale yi daal Ousseynou. bu doon may Ada Fass du ma maye tànk du ma maye wet. ña ngay xeex ña ngay xeex Tapha Mbeur na Tapha Mbeur dina ko daan daan na ko Ada Fass daan na Tapha Ada Fass daan na Tapha la ma la waxoon balaa nga koo door danga koy jàpp Ada Fass daan na Tapha Ada Fass daan na Tapha Mbeur Tapha Mbeur daanu na jël bu ko bett oh. gis ngeen combat baa ngi noonu aada fas Tapha Mbeur arbitre bi sifflé na Tapha jiital tànk ndijoor Ada jiital tànk ndijoor ñoom ñaar ñëpp ay pied droit lañ daanaka ci làmb mën nañ ne ñoom ñaar ñëpp ay fausse garde lañ comme ay fausse garde lañ bu ñu làngaloo ñoom ñaar bu doon dañoo indi xeex ku ci nekk xeex bi dafay neex parce que ñaari pied droit la langoon na ñoom ñaar Ada teg na stratégie pour bëreeg dafa Mbeur Tapha Mbeur teg na stratégie pour bëreeg Ada Fass Tapha Mbeur vraiment dañu lay félicité malgré ñàkk nga combat bi mais dañu lay félicité ndax démb képp kuy athlète ci stade bi wala képp kuy entraîneur xam nañ ne vraiment indi nga état de forme bu jaar yoon ci combat bi vraiment liggéey nga ci combat bi liggéey bu am solo. bisu ñàkk nag di bisu ndam Fass Gueule Tapée Médina Colobane amaat ngeen beneen doom bu judd ci làmb muy aada Fass Ada bëgg na fomi mën na bëre am na mbooloo te fonk na bis Ada Fass fi mu teg tànkam duma ne dina fa jóge waaye jafe na mbër di ko fa jële bu gestu dara ci ginnaawam sóoraalewul dara parce que Tafa dafa am erreur bu mu def tuuti ci komba bi dañ ciy ñëw. mooy Tafa mbër ñëpp xamoon nañ ne Ada mbërantaan la te wet gi dafa neex day bëree wet li nga waroon def mooy balaa ngay xeex ak moom nga jàpp ko parce que yaakaar naa ne boo ko jàppoon doog a xeex ak moom fu mu la mën a bëtt du jàll. man yaakaaroon naa ni loolu ngay indi ci làmb ji te ñu bari ci làmb yaakaaroon nañ ni loolu ngay indi booy bëre mbër mu mel ne Ada ëppoo ko doole ëppoo ko doole. Euh, dàqoo ko bëre ëppoo ko sañ-sañ ci biir géew mu nekk xale bëgg a jóg jëm ci kaw nga nekk mag moo xamante ni wala boog nga nekk xale comme moom waaye nga jiitoo ko ci làmb loo xamante ni tey fi mu toll ni bëgg naa yéeg ci beneen étape moom Ada ngay bëreek moom bu ngeen di xeex da nga koy téye parce que da ngaa jël uppercut boo xamante ni bi nga ko bi nga ko jëlee da ngaa siggi siggi boobu nga siggi moo tax Ada Fass bàyyi la ci kaw jël say tànk ci suuf paquet la daan na. daan la nag jël bu amul benn werante waaye làmb noonu la dañ lay encouragé waat bu baax di encouragé waa Rock Énergie di leen wax ni làmb noonu la euh, ñaari ndamay dugg waaye benn mooy génn Ada ñu koy félicité bu baax ñu bari ñu ngi wax combat adafas ñu bari ñu ngi ñu ngi koy wutal ay adversaire ñu bari ñu ngi bëgg ay Ada Fass ñeneen daanaan te war naa mën a bëre ku ne Ada actuellement kenn waratu ko bañ ci làmb ci génération bi kenn waratu ko bañ ñu mu war a mën a bëreel bari na xam naa loolu dinañ ci gën a def jàngat ñu dem ci promoteur bi nga xamante ni moo organisé woon bis bi muy Fallou njaay njaay production vraiment ni ma ko gisee dafa mel ni kontaan na xol sedd na Fallou njaay bi ñu demee ci moom lii lañ jot waxtaan ñu dem xooli Fallou njaay suñ Fallou siyaar na dellu siyaar bu wér. nga yaakaar ni nga def arène nationale bi nii yaa ko waaw mais noonu lii la ñu gars yi di xaare te it yaakaar naa lépp euh, yéen la rek ndax tey su mënee mel nii presse bi ñoo ci jàpp kon dañuy sant presse bi yëpp di sant axlu làmb yëpp di gërëm ñëpp di wax ne am nañ ci ñëpp kontaan nañ bu baax ci ñëpp vraiment suñu xool sedd na suñu xool fees na sant sénégalais yëpp sant ñëpp axlu làmb surtout diaspora bi ñëpp bàyyi ñu kenn ñu ngi sant ñëpp. prochaine na Ndiaye production kañ la. le 5 décembre si dafa passé ci Pa Abdou Fall bu ñu a wax ci Ndiaye production <laughs> incha allah maa ndeysaan déggal ma loolu. ñu koy jaajëfal bu baax njaay production di jiital euh, di jiital ci njiital gi di Fallou Ndiaye di ko jaajëfal bu baax di ko féliciter di féliciter staff Ndiaye production bi yëpp vraiment gis nañ taxawaay bi gis nañ liggéey bu rafet bi ba ma ko laajee seen prochaine journée daf ne ñoom fi mu toll nii amuñu journée journée bi ñu am mooy Siteu Papa mu nekk combat boo xamante ni axlu làmb dañ koy xaar waaye njabootu làmb dañ koy xaar waaye parcelle ak jàmm gën dañu koy xaar nekk combat boo xamante ni mbokk yi combat bu neex la bu leen fàtte le sept incha allahu rabbi ñu nga jëm fële ci arène national ak Baba Diaw mu fas yéene organiser bis bu rëy dox ci diggante euh, double moteur. xale bi nga xamante ne bu jugee Fass Gueule Tapée Colobane Rebeuss gépp dañuy jóg ànd ak moom mu nekk xale bu bari mbooloo moom double moteur moomu moo war a laale Quench Boy booy moom mu nga xamante ne bu duggee euh, Tëngéej dañuy jóg yeen jóg tubaab jalaaw jóg séendu jóg ah wàcc ci suuf ba jàmm gën dañuy jóg ànd ak xale boobu nga xamante ne mooy Quench booy làmb jooju ragal naa ni mbokk yi ku yéex trois heures dinañ tëj stade bi ndax xale yi fi ñuy jóge mbooloo mi ñuy mobilisé ci làmb yaakaar naa ne làmb ju neex la di leen jaajëfal rek di leen wax ni loolu lañ indi woon tey ci jàngat làmb ji fas yéene woon di leen ko jàngal di leen ko jàngatal ci doxa taxawaayu mbër yi doxalinu mbër yi ak surtout mbër ni ñuy duggee ci làmb ak ni ñuy tuusee ci làmb ak si ñi nga xamante ni ñoo mën a njortu nañ mbër mu ko def mën naa am ndam mbër mu ko def mën naa am defet mbokk yi di leen jaajëfal bu baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb di bu baax ki ma solo yére bi di noobul nekk xale di ñaw yére yu rafet yi nga xamante ni boo ko gisee da ngay yaakaar ni yére yi dañu ko yónnee bitim réew wala dañ ko ñawee à l'extérieur te fii la ko xale bi ñëwee kon nañ leen ko gën a jàppale gën ko taxaw gën ko tàllalaat loxo moom noobul moo koy ñaw benn xale la boo xamante ni mu ngi Parcelles Assainies euh, en face cinéma bi unité 3 fa la nekk numéro am di 77 700 06 10 mbokk yi di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jërë ngeen jëf. Ndeysaan ma nga noonu di dem ma nga noonu di dem. géew gi noonu di dem dafa loo may mujjee wax. yàlla ñu yàlla may ndam. dégg ngeen dafa saafara ñoom ñaari xale yi daal Ousseynou. bu doon may Ada Fass du ma maye tànk du ma xeex da xeex dafa am mbër door nañ ko. na dafa am ko daan daan na ko Ada daan na dafa Ada Fass daan na Tapha Mbeur la ma la waxoon balaa nga koo dóor danga koy jàpp